Karia euh, Sissoko euh, yo yaay euh, yore coordinateur mouvement bu Alounsar, candidat à la présidentielle de 2024 alors yéen Alioune Sarr fi tournée yéen yow ban bilan ngay tiré ci tournée bi waaw maa ngi lay sant di la gërëm monsieur Sylla ci question yi nga xam ne posé nga question yi am solo man suis ci coordinateur mais je suis aussi euh, représentant aujourd'hui euh, de la coordination de CAP 24 ici mm. en France. Mm. Maintenant, ci mm. je tire un bilan positif parce que nous avons travaillé avec euh, des coalitions de partis et ici au niveau de la diaspora. Et on a organisé un événement le 19 août 2023. Événement nous organisé et ça a été une belle réussite. On a eu une belle mobilisation et que le président a fait passer un message du programme mm. de CAP 24. Mm. maintenant que euh, vous fekkee ne am na li nga xam ne. Mm. war naa ko ci leeral ma gën ko ci leeral. waaw waaw gis nañu image yi xam nañu ne amoon na ay ay nit mais yow koo xam ne da nga jege euh, Alioune Sarr yan ñooy qualité am. waaw Alioune Sarr euh, dama ko demoon seeti Sénégal mu impressionné ma et ci lu ma impressionné parce que dama un petit euh, village am euh, muy nek maire de Noto hmm. lu ma impressionné dama dugg kërëm fekk fa Jack bu mag fekk fa aussi Sénégal en miniature c'est-à-dire que le li Sénégal soxla rek dañ ko junj ci biir kërëm muy ci agriculture muy ci élevage muy ci commerce c'est-à-dire que dafa mel ne kër gi daf ko transformer comme Sénégal en miniature mané qui buñ ko dénkee suñu réew. Hmm. dañuy jëm ci kanam. Hmm. waaw loolu daf ma impressionné moo tax ma ne tey damay dëggal sama bopp. Hmm. te Sénégal ki nga xam ne moom la gëm pour diriger ko mooy Aliou Sall. waaw léegi yow yow yan message nga mën a jox Sénégalais yu nekk dans la diaspora et encore yan lan ngeen di fas yéene def pour euh, euh, yokk seen seen mouvement bi doole pour que seen candidat bi am chance. bon mouvement bi actuellement nii actuellement ñu ngi waxtaan ak ay kuréel yu bëri. ay coalition yu bëri et ñooñu ñëpp ñëw nañ tey ci biir te coalition bi mi ngi jël ampleur tey jii def nañ suñu doxantu dans les régions du 18e doxantu bi jox na résultat bu mag parce que rencontre nañ ay sénégalais yu bëri ñoom ñëpp adhéré nañ ci projet bi nga xam ne moom la Alioune saar gëm pour que Sénégal mun a jëm ci kanam te ñun am nañ yaqiin tey ne Sénégal Alioune Sarr moo ko mun jiite te tey xam nañ ne tey lépp li nga xam ne moom lañ yaakaaroon ci nit ci ay. parcours bi nga xam ne dox na ko ci gouvernement bi te tey du ma damay tënk sama wax rek parce que lu ma mun wax mënul gudd lu bëri mais xam naa ne tey jii nii damay invité nit yi ñu lire suñu programme mooy www point alunsar point org et dinañ ci gis lépp li nga xam ne moom mooy programme bi nga xam ne moom moo tënk CAP 24. jërëjëf Zakaria merci.